alhamdulilah. mais est ce que li am bettoon na la premier tour 57 franchement man bettuma parce que dama proposé woon dama waxoon que ni dans tous les plateaux que j'ai fait que man recensement yu ma gis études yu Sonko dina am 76 minimalement ci élection yi. donc rawatina nak ñi écarté ko rawatina victimisation bi mu am rawatina tam manam mu ñeu proposer ñu ko xamné fi Macky Sall doon gagner te Macky Sall nekul candidat mom moo fa nekk instant bi nii candidat manam moy Bassirou Diomaye Faye donc ça veut dire que ñom lu ñu yaakaaroon manam mën ko manipuler ci chiffre ci lépp.

le président il l'a dit, le président Bassir Diomaye, y ci réformes même c'est ci CEDEAO il y aura des propositions qui vont être faites il y aura des réformes qui vont être faites Maintenant, il faut que sénégalais Madame le Sénégal au lieu de perdre ci C'est Sénégal te je day dire. mais monnaie local bi ñu aussi est-ce que tu penses que mon na bien sûr que mon na mais c'est un processus ce n'est pas automatique monnaie locale c'est xam ne nekkul passation le 2 le 3 nous décidé Le processus la bu

féliciter ko bon grandeur forcée là, parce que aussi Amadouba il a tenté toute la soirée d'avoir un deuxième tour. jéem na jot Macky Sall ko jot parce que avons un deuxième tour sans l'aval du président Macky Sall les a piégés na téléphone am donc ils avaient besoin d'une nuit pour ruminer et digérer légui sante yalla lol kese la jàmm kese fi xew. du sacrifier Amadouba. Ba. du ma ne sacrifier en fait mais Sénégal mon choisir un président on a un président bo dans sa typologie c'est un Sénégalais authentique c'est un Sénégalais naturel.

président Momoko, justice askan bi moo ko mais tamit justice tamit maanaam magistrat yu ñu tànn tabb leen ñoom ñoo fi war a justice te loolu du président Sonko du président Djama, ñom ñoo ko mën a mais magistrat yi nga xam ne ñooy tiim dossiers yi ñoom am sen akulay taala mëna doxal lop té lolu tamit ci réforme yi la bokk parce que justice moy lu ñu war a njëkk réformer nag président Djama fay victime ci justice sénégalaise bu baaxul président Ousmane Sonko victime la tamit si justice sénégal bu baaxul donc mi ngi noonu

sant il faut avec la grande porte la grande porte madame, maanaam mu def passation de service comme nous ko fait. maintenant la chance moi, que dans alternance on restait toujours avec le déchet du système Avec Ablaï Wad, on est resté avec le déchet du Parti Socialiste. Avec Makissal, on est resté avec le déchet du PDS. Là, on a un président authentique, un président pur, un président purifié. Manam, le won ci manam le système. Maintenant, Sénégal avec un nouveau président, avec des voilà des réformes incha allah. merci alors euh, mbokk internet yu sant yi comme ni ngeen ko gisee ñu ba léegi euh, ci euh, conférence wala sax déclaration nga xamante ni moom mooy Bassirou Diomaye Faye. alors nous devons jéem a jël ki nga xamante ne mooy pas Abdoulaye Touré donc euh, voilà xar xar waaye tamit président Ousmane Sonko mu sell mi ci la bokk Bassirou Diomaye Faye ci la bokk félicitations à ce à ce peuple debout qui a toujours montré son indignation face à l'injustice entre autres ah loolu da nga koy laaj ah Bassirou Diomaye je suis pas Bassirou je suis pas Bassirou. Merci. voilà euh, Pape Abdoulaye Touré la ñuy xaar mu pare euh, ngoone bu pare ñu mën ko jël euh, pour ñu mën ko jël normalement voilà alors ngoone du ñàkk xam naa di ko wax sa donc voilà.

buñu bu fi nak centre limite TV dañuy dem directement fi nga xamanteni moy QG bu Bassirou Diomaye Faye bal docteur Cheikh Tidiane Dièye ñoo ngi lay nuyu maa ngi lay euh, di la di nuyu journaliste yi nga àndal yëpp di nuyu mbokk yi ñu seetaan fii ci biir réew mi ak ci bitim réew comme ni ma ko waxee léegi tey day bés. waaw Walfadjri déjà da nga nekkoon candidat di battre campagne pour euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, nga jàpp que ni am mu gagné euh, selon en li nit ñëpp jot mooy gagné na dès le premier tour. avec un écart très large quand même devant le principal challenger muy le candidat Amadou Ba. Ah. tey dégg nga ko mu def discours fàttewu leen remercier na leen ana nan nga ko jàngatee. waaw xanaa di di ko rafetlu bu baax a baax. te di wax ni yaakaar delu ci na ci réew mi euh, lii nag du luñu bet ci ku xam senegal ni mu mel senegal nak man duma rek acteur politique dama yitam ko xamni dafa nek ci askan wi waaye di jangat askan wi ndax dama ci leg leg am ci taxawayu sociologue bima don manam di jangat askanu Senegal. Musuma ñak yakar ni Senegal rew la mo xamni sa yu ñu yegge ba fu mu wara jëfé wala doxé wala am taxaway bi ñepp di xaar ci mom askan wi dina ko am li tax man ma bàyyi woon lépp candidat wëlbatiku ne Bassirou Diomaye Diakhar fay laay woo pour ñu voteel ko dama gëmoon ni projet bii mu yor mooy projet bi baax te mooy projet bi sénégalais yi bëgg ànd ak moom moo tax ma jàpp ni bu ñu bëggee tabax réew mi képp kuy acteur politique dangay nangu fatte sa bopp parce que bu ñu woowee sénégalais yi ni leen dañu bëgg njub ak ngor ak fulla ak fayda ak jom ñu delloosi ko loolu ñun ñoo ko war wan sénégalais mu nekk exemple bi nga xam ni ñun ñoo koy jiital lii ñu fal Bassirou Diomaye Diakhar Faye yàgg naa leen wax ni du rek mbiru politique ku ko jàppee woon mbiru politique mooy sax mu am ñu ci am ay njuumte di di xaar ndax war nañ ko jàppale wala waruñu ko jàppale wala buñ koy jàppale dañ ciy xaar dara ma ne leen képp koy xalaate noonu mooy juum nga parce que lii am du rek mbiru politique mbiru transformation sociétale la aw askan la wu yegg foo xam ni jàpp nañ lii mu doon dundu daf ko war a soppi complètement changé ko moment boobu nag mu am ku fil ku génn ku tudd Bassirou Diomaye Diakhar fay indi projet boo xam ne yàgg nañ cee ànd man mii ak ñi ñoo àndal ñëpp ak président Ousmane Sonko ñu tab taxawal ko togg projet bi ba mu yegg si fii te ñu gëm ni mooy projet bi gën ci Sénégal mooy bi gën ci Afrique ndax projet bi am na ci ay poñ yoo xam ni defaraat Afrique moo ko tax a jóg moo tax ñuy sant yàlla bu baax a baax di gërëm sénégalais yi peuple sénégalais yi ndax wan nañu askanu askan wépp wan nañu Afrique waaye wan nañu àddina nit ñi doon jàpp ne Afrique dara lu baax nu fa am réew Afrique fu ñu waxee rek démocratie day yàqu te nit ñi gëmuñu dara